asalaamaaleykum mbokku téléspectateur euh, internaute ak ñi nga xam ne ñu ngi déglu ci leeral TV leeral FM leeral point net ñu ngi fii Massalikul Jinaan euh, ndawi leeral yi ci gàmm gi nga xam ne ni tey jii mooy guddi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ñëw fii euh, fii ci Massalikul Jinaan nar leen jukkil nar leen jox mbooleem xibaar mbooleem li nga xam ne nii dina xew fii ci Massalikul Jinaan ñu nar cee ànd ak. ay boromi xam-xam nar cee ànd ak ñi nga xam ne ñoom ñoo ŋànk liggéey bi fii ci Masaalikul Jinaan e ñu am tamit gan goo xamante ne nii xam ngeen ko bu baax a baax a baax e, min ngeen ko ci tele yi muy Serigne Moustapha Kane bu Touba TV moom incha allah moom la ñuy e, jox suñu micro mu am lu mu sànni ci li nga xam ne nii mooy mag e, gàmmu fii ci Masaalikul Jinaan salaamaaleykum sëñ Moustapha waaw sëñ Cheikh Diop ñu ngi lay nuyu di la siyaare bu baax siyaare euh, mboolem téléspectateur yi nekk Leral TV rafetlu bu baax seen ak seen euh, visibilité bi nga xam ne yi nga xam ne ñu ngi topp euh, télévision Leral TV. jërëjëf sëñ Moustapha tey la gàmmu gi waaye gàmmu gi tamit coïncidé ak bés boo xamante ne nii moom moo nekkoon inauguration Massalikul Jinaan muy ñaari bés yu ànd tegaloo lan nga ñu mën a wax. ci sëriñ bi ak gàmmu gi waaye itam tey ji bés bi ni mu coïncider ak inauguration Massalikul Jinaan waaye jërëjëf sëñ Cheikh euh, loolu yëpp lay wane rek ni sëriñ Touba la yàlla nangu léppam sëriñ Touba tamit digganteem ak yonent bi saa su nekk day gën a confirmé wu ndax buñ dee tabax juma juma néegub yàlla la waaye nag lañ fay def mooy dañ fay jaamu yàlla jaamu yàlla googu yonent bi moo ko moo ko jàngale ndax wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'a lillahi ahada euh, yonent bi mooy ki nga xam ni moom la yàlla yónni ci mboolem imaanit bi yonent yi ko jiitu yëpp ku ci yàlla daa am ci xeet wum la yónni moom mu ne ko wa ma arsalnaaka ila kaafatan linaas dama laa yónni ci mboolem nit ñi waaye nag wa ma arsalnaaka ilaa rahmatan lil alamin dama laa yónni tamit nga nekk yërmande nit ñi moom nag yonent bi bu dul woon ak moom dara du am moom moo tax yàlla bind àddina moo tax yàlla bind alaaxira ak li ci biiram Sëñ Tuubaa wax ne li nóori yi kullu nóori saati un bisa naa nóoru nujoomun wa nóoru sams xamari leer yonent bi mooy leer gi nga xam ne moo tax yàlla bind suuf si bind asamaan si bind biddiw bi di jant be weer wi ak mboolem seen loo xamante ni lu bokk ci créature yi rek yonent be tax yàlla bind ko muy ki nga xam ni mooy sunu sëriñub sëriñ sëñ Tuubaa mi ñu yaakaar yonent bi mooy léppam kim njëkk a gis muy sëñ Maodo Moustapha ba ci sëñ Murtala yonent bi la leen tuddee liggéeyal yàlla liggéeyal yonent bi la ko kenn mas sa liggéeyal tabaxal fii jumaa ji Masaalikul Jinaan tabax fi jumaa ji nga xam ni moom lañ koy moomaleel waaye lépp dellu ci li nga xam ne mooy liggéey bi muy liggéeyal yàlla ak liggéey bi muy liggéeyal yonent bi Masaalikul Jinaan nag nekk barab boo xam ne bépp xew-xewu diine boo xam ne ñu ngi koy defal yàlla di ko defal yonent bi dañ koy taxawoo fii ci ndigalu jëwriñ Alaaji Mbàkke yu Fay muy le représentant di xalif général des mourides waaye am taxawaay bu am solo boo xam ni am na ko ci ndakaaru ak li ko wër xam nga ne Masalik biñ koy tijji ouverture boobu li ci xewoon yaakaar naa mës a xew ci àddina li xewoon fii Masalikul Jinaan biñ koy tijji loolu mës a xew fenn ndax gis nañ loo xamante ni mësuñu koo gis loolu yëpp nag li muy tegtale mooy mbirum sëriñ bi moom la yàlla nangu digganteem ak yàlla ak digganteem ak yonent bi dara da cee doxul sëñ Tuubaa nag digganteem ak yàlla dara da jomb ko ci ndax euh, fa àgg yàlla kenn ku fa mas àgg yàlla amul ci àddina nim liggéey la yàlla liggéey la ko yonent bi kenn ku ko mas liggéey la yàlla ak yonent bi amul loolu moo tax ba yàlla fay ko fay goo xamante ni foo dem ci ay dëkkam wala ëttam lu mel ni nga fi fekk bépp dërëm boo xam ne nit def na ko fi tamit yàlla nangul la ko ndax bis la boo xam ni lu ci waay def balaa déwén di nga ko gis ndax kiñ koy defal moo toll noonu muy yonent bi alayhi salaatu wa salaam. Moustapha jërëjëf jërëjëf jërëjëf donc euh, comme niñ leen ko waxee ñoo ngi fii ci Massalikul Jinaan euh, ñi ngi xaarandi fu mu nekk nii ñi nga xam ne ñoom ñooy délégation officielle mooy ñi nga xam ne euh, ñoo ñor juge ci nguur bi waaye itam dina fi am ay conférencier yoo xamante ne nii dinañ fi jaar waxtaanee li nga xam ne mooy gàmmu gi waxtaanee li nga xam ne mooy Serigne Touba Khadim ak lien bi nga xam ne moom la am ci gàmmu gi lépp dinañ leen ko toppal fii ci Leral TV euh, euh, bu ñu paree dinañu dem tamit ci mbooloo mi laaj leen ñu xamal ñu ñoom it seen yëg-yëg fii ci Masaalikul Jinaan incha allahu rabbi. noo ngi sant baax di ñaanal Serigne Mountakha di ñaan sunu borom yàggal ko fi lool euh, gàmmu buñ ko tuddee xel dina dem ci sëriñ bi gàmmu na ci géej gi wa jeextu. di man takrimahu baana fi sahri di man fil bahri rabbana la wax dugal nañ ko ci géej gi gàmm na bi mu nekkee làmbar na gàmm na fa biñ ko yóbboo maayomba gàmm na fa weeru gàmm gi tamit ci la ñëw ndakaaru ndax bul fàttani ni le 10 août dëppoo 18 safar ci la départ woon Mbacke Bari gàmm mi ngi ko fekk Saint-Louis waaye dafa gàmm kon moom léppam gàmm la moom Cheikh Ahmadou Bamba muy bis boo xam ne ci lañ daan gis muy muuñ naar yi sax dañ daan wax naan soo bëggee mu jox la dara lu lay jox gàmm la koy gën a def daan bàyyi ba weeru gàmm jot boo ñëwee njaareem naar yaa ngi yeew seeni gileem jóge Mauritanie ñu mën a dugg dugg ñuy war seeni fas ngir lan kum ci xool rek xelam day dem ci soppeem ba Seydina Muhammad lu mu am mu jox la ko noonu tamit la daan demee di gàmm parce que bi mu nekkee njaareem di gàmm tam tubaab bi dañoo mujj autoriser ko ñu ne ko gàmm gi dootuñu may muy déborder ba dañ lay jox euh, autorisation yoo xam ni ay laissez-passer lañ koy def ku bëgg a ñëwati ci gàmm gi dañoo annoncé ne da ngay dem bureau gouvernance ñu ñu jox la laissez-passer guddi gi bu tubaab bi dajeeg yow dañ lay laaj am sa carte. moo tax dañ daan autoriser ñiy gàmm am na nag ci benn bis murit boo xamante ne benn bis dafa ñëw fekk laissez-passer yi fañ koy joxe jeex na mu dal di ne moom mënta muñ gàmmuk sëriñ bi ndax sëriñ mu Ka loolu mu wax ne sëñ Tuubaa fa xaar kanamam day far njàqare day faj aajo mu gis sëñ Tuubaa moo dàq mag ñi ku ci njëkk a gis sëñ tubaa bis ba nga ko njëkk a gis moo la dàqal ci àddina bu mu xëyee mu dégg nopp yooyu dootu tëx sëñ Tuubaa dëkk bu mu mës a fanaan xar sax du mem liir du jooy nag du nàññi fas du ngexal mbaam du ŋaax xaj sax du baw nee na lu yàlla bind rek doomu aadamaa ko ci ñeme te dara taxul lu dul nuróo gi bind moo tax moo tax mag ñi daan bëgg nag gàmmu jot ñu jàkkaarloog moom ci la daan jël sikki bi di ko xeeñal ñiy gàmm di jël ay xaalis di leen ko jox di jël ay piis di leen ko jox di jël di jël ay tàndarma di leen ko jox di xelli kafe ci loxo boppam di séddaleel boppam ñam wi loolu gàmm la ko daan def dootuñu autorisé gàmm ci lu dul nu la neex gàmmoo ko fu la neex gàmmoo nu la neex gàmmoo ko kon kooku nun mooy sunu idole lii nga wax nag ci Masaalikul Jinaan doy na sëkk euh, bàkku sëñ Touba la le 27 septembre mois de septembre sax mooy moom la yàlla mooñeeg sëriñ bi. kon bu ñu demee ba sëñ taxa jàppaatal nu inauguration le 27 septembre muy 2019 doon 4 ans tey mu tombé waat guddi guddik sang mbindeef yëpp mooy kon yaakaar naa ni suñ doon diir jam nan su doon rëbb la sooyunu noo ngi santaat Serigne Touba di ñaanal Serigne Mountakha. yonente bi moom lii rek la woote ndax Serigne Touba waxoon na ko gàmm ñëw naati ñoo ngi teewe kooti bu wér te am na kat gaa teewul sant daa la nu war bisam bi fii la nu wattoon a ngërëm nemeles dil seeti fekk ñu fekku jant ñoo gañandaat soonaa ngi saañoo ngi géttee ngi piree nga ca kaw ñuy dund koy mucc man xaw mag tawat lu ko jor kon daal kër yëpp yàlla na nu fees ak barke del la ko yiw ku nekk sant bu wér gëm yàlla yokk bu wér murit nag dëgg lu dul ak bàyyiku te soññi boppam waru ko kon nañ jébbalu te bàyyiku ngëb sëb sunañ aw ndigalam ndax murid na cas ay mbiram jox sangamay la ko war du lépp lu war sëriñ war am murit kañu ko amaana ngay gis lu war ci sang wàcc laram amaana ngay gis la war kee tekee waru ko ku nekk ak la ko war bul def lu dul la la war bul wàcc la la war kuy wàcc ndam jafe ko fonk murit daala war bépp murit te fexee leeral digganteem ak sangam mu yeggale ko yal nañu yàlla may tawféex ku nekk yàlla ne ceex la muy mébét ñu ne ko foox mu bañ a maam mu bañ a xoox yam képp yow te gore wasalaam di sant yàlla rek di julli ci yonente bi ndax dañoo nekk tey ci bis bu tedd ci guddi gu tedd guddi goo xam ne moo gën junni weer muy guddi Seydina Mohamed muy guddi gàmmu guddi gàmmu nag Serigne Touba daka fonkoon lool ba daa jël loxo yi tedd yi di séddale nit ñi xéwloo di xelli warga wi di xelli ataaya di xelli café gi lépp lu ñuy naan te jullit war kaa naan Sëriñ Tuubaa di ko di ko teg Sëriñ Tuubaa daal ci gàttal lu ne tagg ne ko yonent bi muy jas bu maaxay bu mu xaddimaat lépp rek yonent bi la ko taggee bañ ne ko ba ju doom ju jur sax yonent bi la ko tuddee kooku mooy Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul guddi gi kat dafa nekk guddi gu am am solo guddi la goo xam ne kat bu ñëwee tey balaa ti mu nekk lu sore sori kon nag war nañ cee profité ndax guddi promotion la daal. organisation gàmmu gi moom ndigal la ndax comme ni ko xamee masaalik lépp lu fiy def rek day doon loo xam ndigalu sëñ tubaala xam naa looloo tax lu ñu fiy defit daanaka li fiy daje ci mbooloo ci guddi gàmmu daanaka fi muy daje bariwul ndax euh, boo seetloo. entre cinquante mille ak quatre vingt mille personnes chaque année dinañ fi daje ci guddi gàmm looloo tax euh, jëwriñ mbàkk bu ndigal li daanoo rek jóge ci sëñ Muntaxa dafay woo le comité d'organisation du de, de la de la mosquée ñu daje pour waxtaanee li nga xamante ne moo jëm ci wàllu organisation bi organisation bi nag ñeenti pàcc la pàcc bi ci njëkk mooy li nga xamante ne mooy l'organisation culturelle ndax xam nga gàmmu tamit dafa am ay normes yoo xamante ne moom noonu la ko sëñ bi daan taxawale ren nag exceptionnellement ñëpp xam nañ ne euh, gàmmu gi dafa tombé ak l'ouverture le le le quatrième anniversaire de l'ouverture de la grande mosquée Massalikul Jinaan donc muy ñaari ñaari mbir yu daje. mu doon aw tax tawféex ci ñun te vraiment gis nañ ci TikTok beeg ci Facebook bi nit ñi vraiment image yëpp ñu ngi koy génnewaat yi nga xamante ne mi ngi euh, jëmoon ci ouverture Massalikul Jinaan boobu nga xamante ne li fi daje ci mbooloo mës a daje Ndakaaru bu ñu jógee nag ci wàllu culture boobu euh, bu ñu defee barsan bi ba pare sëñ Mountakha Guèye moom ren la ñu invité mooy invité d'honneur nga xamante ne moom ñëpp xam nañ ne euh, jànkatu xasida la waaye itam day doon waxtaankat nga xamante ne moom dina ñëw ci euh, euh, solo bés bi muy solo gàmmu ak sëñ Touba mu ko fonkee woon ak nan la ko daan dundalee ak it li nga xamante ne moom nag moom nag moom noonu la ko doon dundalee mu mën ko fàttali taalibe yi ak mbokk jullit yëpp. bu loolu weesoo nag kon euh, nu mu koy defee chaque année jëwriñ Mbackiou dina jël parole euh, wax ak euh, taalibe yi joxe quelques recommandations nga xamante ne ku fi jóge rek di nga ko mën a yóbbaale. jëwriñ nag bu pare ki nga xamante ne moom la fi sëñ bi yónni. muy sëñ Muntaxa te ren mu doon sëñ Moustapha jasara ñëpp xam ko moom incha allah moom it dina jël parole pour wax ak nit ñi ci turu sëñ Muntaxa euh, presque euh, ak ak ak bernde yi nga xamante ne au total def nañ presque quatre-vingts bana yoo xamante ne euh, pour pour pour pour jox ko pour jox ko rek taalibe yi nga xamante ne ñoo fi war a ñëw leneen li ci des aussi mooy ci wàllu beñe yi. actuellement à peu près cent cinquante booli defar nañ ko itam pour joxe ko ci wàllu kafe gi moom sëñ euh, Abdoul Ahad Café moom nga xamante ne moom it siiw na Ndakaaru euh, vraiment teg na mbana yi nga xam guddi gi yëpp moom dañuy defar kafe rek di di di di di di di joxe. donc ci côté sanitaire bi loolu la ci côté hygiène bi également. Euh, daayira xidma masaalikul naan mooy xale yi ngeen gis ñu sol yu vert yi ñoom nga xamante ne ñoo fi ne lépp lu jëm ci wàllu xidma bi ñoom ñoo koy def donc ci wàllu hygiène bi gis ngeen vraiment lu lu lu nit ñi taxar rek ñoom ñi ngi ñëw di ko defar ah nekk ci organisation bi et bu ñu bu ñu dëralee tamit ñoom ñooy jël di yóbbu di yóbbu añ yi ah euh, di jox nit ñi reer yi tamit ñu bu ñu paree léegi. dinañ dëralee itam di di di yóbbu reer yi. sécurité également vraiment c'est l'occasion aussi euh, ñu remercier le ministre de l'intérieur qui n'a ménagé aucun effort nga xamante ne tey il nous a envoyé deux cents policiers ci barrières yi aussi yónnee nañu deux cents barrières pour aussi côté sécurité bi xam ko fii li fi ñëw dafay bëri ñu mën a ñu mën a sécuriser site bi ak nit ñi ba nit ñi mën a ñëw ci jàmm ñibbi si jàmm. foofu itam vraiment ñi ngi remercier le sous-préfet de Grand Dakar nga xamante ne vraiment engagement comme yi ma waxoon rek ñi nga xamante ñoom jëloon nañ ko yëpp ci wàllu ONAS ci wàllu sécurité euh, yooyu yëpp ak Vespasien yi yëpp vraiment euh, andi nañ ko donc ñu ngi ñu ngi remercier le le le ministre de l'intérieur